wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi nga xam ne yéen a ngi jën ak ñun di ñu seetaan ci Nabi TV officiel seen mbokkum daara imam Cheikh Ahmed kan Kane Diallo dëkk Thiaroye Hamdallahi 3 dellu si na ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moom lañ leen di defal bés bu nekk muy émission ëttu jigéen ñi waaye ñu gën ko xamee taxawaayu jigéen démb ak tey ci biir société fa tabarakallahu ñuy waxtaan lépp lu làmb jigéen puisque daa iman nañ koy waxee jigéen mooy àdduna jigéen mooy kër jigéen mooy ëtt jigéen mooy penc lu ci jag jigéen fekke na ko su ci génnee loxoom mu wéet mu yàqu fa tabarakallahu góor mënul dem sans jigéen moo tax ku waxtaane jigéen waxtaane nga àdduna ci biir loolu ñu ngi nuyu mbokk yu jënul ñëpp góor jigéen mag ndaw ñi koy emek di ko rafetlu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla mu defal leen tawfiqul ilaahi ak taysir ak barke wër ak fekke ak jàmm ak salaam kodd waay ak war waay ni ko suñu mbokk xaaji maxtaar saar suñu xarit ñu ngi koy nuyu au passage euh, di ko waxee di nuyu xaaji fata di nuyu saddam ak euh, Mor Diallo ñi nga xam ne ñu ngi ci technique bi fa tabarakallahu tey ñu bëgg a bi waxtaan ak yéen ci ñaari poñ yoo xam ne am na solo lool ci dundu jigéen benn bi nag ci biir ñaari poñ yi dafa mel lu raaf loo xam ne dafay waaj a jeex amatul moo gën a jafe jamaa jamaa am na ñuy dund ba màgg ba màgget mu ci seen musuñ cee teg seen bët puisque dafa jafe moo gën a jafe zircon xeetu mbell la am na ñuy dund ba màgg ba màgget musuñ sax dégg te am na ci réew mi nag ci diwaanu Kees loolu xeetu mbell yu jafe yooyu nit ñi gën a miin or xaalis di gën a dégg jamaa léeg-léeg zircon am nga dégg ko li ñu bëgg a waxtaane ci biir jigéen moo ko ëpp valeur ci réew moo ko ëpp maanaa ci jigéen waaye moo ko gën jafe tey ci jamono ji ñu toll mooy lu ñu naan njànq maanaam garde sa bopp ba war a am borom kër mu fekk la nga fees dell dara tuuruwul dara yàquwul dara sikkul loolu daf ñu yóbbee ñu waxtaan ñu naan laabaan te mag ñi doon def doon ko def ci ay jamono ci réew mi ruq boo demoon muy kajoor muy bawol muy fuuta muy fu doon dëkk yëpp dañoo mànkoo woon doon xarafal seeni doom yu jigéen yi loolu nag du ci dugg Ceerno Muntaqa Taal Muntaqa Amadu Muntaqa Cheikh Umar Fuuti papa Ceerno Madani bind na ci benn téere donte téere bi xam naa muluñ ko wala yaatuwul waaye bind na ko ci man loolu taxuma jóg ndax dagaan naag sunna la man duub la ak saab loolu beneen waxtaan la waaye li ma tax a jóg mooy jëmm laabaan ji mooy nga xam ne boo demoon ci dëkk mag ñi comme ni ma ko waxee Kajoor Fuuta Bawol Casamance foo ci dem xale yi dañ leen doon defal lu ñu naan laabaan xale yëpp boo leen doon rendi duñ la jox seeni bopp ndax dañu dañu am bés bu ñu xaar boo xam ne seen ndey ci la war di siggi seen baay siggi ci seen sër siggi ci soo ci siggiwul da nga cay am woy wuy topp say sët que kenn ku ci nekk dañ la doon tëggal feccal la sa jëkkër may la xar nag léeg mu may la or ndax danaan bàjjeen fekk naa sama soxna mu fees dellu kontaan waaye ay bu ko ci fekkul gàcce bi ngay am. théâtre nañ ci théâtre bu tudd yaa xànju yéen ñu bëri saraan nañ ko léegi nag bu ñëwee ci buñ delloo ci lislaam que lii aada réew mi la suñ ko méngaleeg lislaam Yonent bi sallallahu alayhi dafa am lu mu tere woon. maanaa góor a jigéen waruñu séq la ñu séq seen néeg ñu génne ko ci penc bi loolu dafa xaraam yàlla sax wax na ci alquran wa iza sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijabin su ngeen di ut ci seeni soxna yi bànneex na ngeen ko ut fu nëbb foo xam ne bët di fa tege que loolu zalika atharul qulub wa qulubihinna loolu moo gën a dal xel góor ña jigéen ñi te moo ëpp sutura puisque doomu aadama ni ko yàlla bindee naturellement dafa dafa bëgg sutura xanaa koo xam ne dafa am lu ko dal lu ko gaar moo xam sàngara la jël wala drogue ba ànd ak xelam muy def yenn yi waaye doomu aadama bu ànd ak xel conscience am bëggul futteku ci mbedd di sëy xanaa tubaab bi nga xam ne ñoom dañoo ndeyre seen bopp yàqu kon intention bi taxoon waa réew mi di ko def intention bi mooy yéene bi sell na mooy dañu bëgg jigéen ju nekk garde boppam waaye acte bi nag jëf jëmm jëf ji baaxut ñoom seen yéene moo nekkoon jigéen ju nekk nga garde sa bopp ba sa jëkkër bu ñëwee fekk fa la nga xam ne moom mooy sa njànq ak sa ndaw mu nekk koo xam ne moo koy njëkk utiliser moo koy njëkk a moo koy njëkk jëfandikoo loolu moo nekkoon seen yéene kon yéene bi seetloon na waaye jëmm jëf ji tëgg ak fecc ak génn sër bu am deret bi loolu baaxut léegi nag man dama gis bu yàggul ci YouTube bi du tooñ nag mais nag am naa droit en tant que imam en tant que sëriñ ku dëkk ci réew mi kuy gëstu kuy jàngat su ma gisee loo xam ne lii dañ ko ne fàng ci bi ku ko defoon sa biir kër du ma ci wax ku ko defoon sa biir néeg du ma ko wax mais comme dañ ko gine fàng ci YouTube bi nit ñi di ko xool te man may wax ci YouTube bi am naa ci droit wax ci sama xalaat pour ñiy dégg xam ne lii jekkul jaaduwul kenn koo xam ne soi-disant nee nañ sëriñ la mu takk benn femme bu célèbre lu ci nekk ñu génne ko ci YouTube loolu jekkul jaaduwul puisque tey dañu promouvoir alal sëy alal la xaalis la teraanga la yooyu rek ci la nekk moo tax généralement sëy yu mel noonu du yàgg parce que lu ci gën a bëri yàlla taxul léeg-léeg nga dégg benn naafeq wala benn faasiq boo xam ne bu déggee may wax yu mel dañ naan kii moo soxor pourtant bu amoon ndaw si jël pourtant bu amoon def nu déedéet que l'islam boo ko jàngale di daw ku la saaga ku la xas ku la dóor ku la tëj ku la rey di nga jàngale lépp ba mu des lislaam ndax yeneen bi saa mi ngi yàlla waxoon udon wooteel ila sabili rabbika jëme sa yoonu borom waaye na ko def bil xikma ci xereñ ci technique wal mawisa xasana ak waaraate bu rafet wa jaadilhum billati hiya asan boo demee bay waxtaan na waxtaan wi rafet na ma gën a rafetee yeneen boobu dóor nañ ko ba damm bañam saaga nañ ko xas nañ ko génn nañ ko dëkkam def ko persona grata dëkk bi nga xam ne fa la dëkk baayam dëkk mu dëkk fa donte ndeyam dañ naan Médine mooy cosaanam waaye fa la fa la nekkoon donc yonent bi sallallahu alayhi moom lañ mën a toroxale noonu te muy gën ji mbindeef yow mi nekk ci xeetam di xeeñtu ay tànkam bëgg jaar jaar jaaram di woote ci lam doon woote bëgg nekk noobul boo xam ne kenn du la xas kenn du la wax dara bu yoboo nga rëgal nga tom toog bañ bàyyi woote moo tax ñun li ñuy woote ci diine saa yu ne mën nañ ci séntu ku ñu saaga ku ñu dóor ku ñu xas ku ñu tëj parce que ñun li am solo mooy bu yàlla gërëmee rek falaa nu baali li ci des ñun suñu yoon nekku ci na fekk lu ñuy wax yàlla gërëm na ko te dana jul njëriñ ñeel jullit ñi mu nekk lu ñu jaamoo yàlla parce que ñun tànk boobu lañ jël moo tax laabaan bi ma kooku ñu tuddee ko sëriñ ba pare mu nekk koo xam ne lu ci ne ñu nekk fànk ci ay kàddu ci ay ku ne di saxalante lax ak yoo xam ne wax dëgg yàlla dafa ñoroog yu ñàkk fayda parce que julli aussi day woy moo tax bi ma ko ne lii dinaa ci waxtaan nit ñi ñu xam ne jullit yàlla daf koo teral nit ku baax day am valeur boo nekkee kilifa da ngay yor cëru kilifa bu doon musicien la sama yoon nekku ci bu doon sëriñ mbëru làmb la sama nekku ci bu doon footballeur sama nekku ci mais comme dafa tuddee sëriñ ñun ñuy ay sëriñ dafa am loo xam ne dafa am orma dafa sacré ci réew mi boo xasee ba nekk ko da ngay am tuuti fulla am fayda am gëdd la ngay def nga bañ ñu filme yenn yi parce que jekkul jaadu rafetul kon tey bu ñu delloo si waan jaabaan jànq yu bëri seen ndey yi dañu am gàcce puisque waxuma la dara waaye waxuma nekkatuñ jànq waaye wuñ ko sax bu yàggul maa ngi dégg ci benn émission ci benn télé benn médecin di woote ne benn jag jigéen dafa ñëw bëgg ko fay xaaj bëri ne dama bëgg nga defal ma loo xam ne day delloo si njànq puisque dama am mariage ñu war ma marié te duma ma jànq te nar na am gàcc am keneen koo xam ne dama dégg mu ne moom karité la koy delloosee mais daf cee bëri ay client kon na bu tukki la puisque jigéen ko parforam magasin am alalam teraangam mooy njànqam la nga xam ne yow yaa ko moomu loo ko yàlla yow la ko yàlla dénk ne pour nga gàddu ko mais sa jëkkër bi yàlla jox moo ko moom imagine nit ki li gën a valeur ci yow yàlla làq ko fu gën a nëbb ci yow nga làqati ko jox ko góor goo xam ne takku la bari na man ñoo xam ne samay ami Facebook ñoom su ma waxtaan ak ñoom ba ñëw ci bërëb dañ naan oustaz man kat jafe-jafe jama ci am mooy kama diggoon dana ma takk nax ma tëddee ma rek ngay dégg ñooñu mooy ñi la mën a wax mais ñi la waxul nag kon boo jëloon tey ab sunguf wala dugub bu ñu wol ba pare war koo mooñ ñu ne lii ab jànq moo koy mooñ ki feebar lekk ko mu jóg wala li ma gisoon ci YouTube bi vidéo bi du ci WhatsApp bi di mos ngeen baal ma ab jigéen ju feebar ab ab fas bu feebar biir bi di métti ñu ne jànq walla jéeg boo xam ne day sëy fenn waaye ba muy nekk jànq musul mooy yàlla musul joxe boppam su ñëwee mu jéggi fas bi fas bi jóg dem yoonam ñu ne ko boo jéggi da gaaw parce que boo jéggee pare fas bi day jóg ndaw si ñu woo dën dëkk yëpp ndaw si jéggi fas bi ba mu jéggee bu fas bi boo see na mu jógee ak avant ndaw si di jéggi vrai ou faux mais njàngale daf cee nekk mooy jigéen bu téye boppam musu ko joxe feneen kooku moo mën a jur waliyu kooku moo mën a jur nitu yàlla parce que jigéen ñëpp d'accord nañ ne ku ci am gan yu tedd soo leen toggalee togg wu tedd doo ko yàq ci bool bool bu ab bool wu tilim sooy dem ci kindit ku tedd it moo xam président la moo xam ministre la moo xam sa xarit laam daa niir kese la doo sol yére yu sagar da ngay sol danga sangu ba set sol yére yu baax mel melokaan bu baax a ngeen bëgg nag yàlla jël walu yom yu tedd yi di ko roof ci ay biir yoo xam ne ñoo ñu seen ndey joxe nañ seen bopp ci àll ba yàlla lànk ba ku ko lànk la moo tax doom yu baax yu mel ni Serigne Babacar yu mel mel ni Cheikhul Khadim yu mel ni ndey yu leen jur ci jamono ji la yàlla gisatul la la yàlla gisatul yan yan biir la koy ëmb yan jigéen la koy dénk parce que doom yi ñu ngi baaxee ci ndey yi ma dàqanteeg temps bi dem ci deuxième point bi balaa mu ñu dab beneen bi mooy li ñu naan xale yu jigéen ñi amuñu royukaay ci réew mii dangay ngay dégg da ngay gis jigéen bu sol col goo xam ne yow bu dee gor nga jullit nga nit ku baax nga même bu dee même bu dee yéefar nga sax même bu dee doo jullit sax nekkal beneen diine mais am na loo bañ am na dignité boo dese sa yaram ndaw si boo ko xoolee di nga xoolaat sa kanam puisque du sa jabar du sa yaay du sa papa du sa yaay du sa bàjjen jigéenu jàmbur la laa bëgg a wax bokku leen dara waaye sol na colo melokaan woo xam ne yow boo ko xoolee doo ko ñimee fixé que yaa ngi am looy bañ nit ku am dignité du xool awray nit ki dugg sa awray doom sax léeg doo ko fixé waxantumaa keneen léegi jigéen bu solo noonu sol goo xam ne léeg nga ci télé bi ay jigéen yu toog am na ci télé yi Sénégal yëpp surtout télé privé yi bëriwu ma koo gis RTS nag ci télé privé laa ko gis su euh, ay émission yoo xam ne par suba teel nga koy gis ci émission yeneen télé yi privé yi waxuma bii wala bee wala bee waaye émission yi am nga gis ay femmes présentatrices yoo xam ne la ñuy sol loolu kenn du ko sol ci saal kenn di ko sol ci buntu kër ci biir néeg rek lañ ko war a sol ñoom ñu toog ci télé fang àdduna bi leen gis ngay décrire seen ween parce que am nga bët yaa ngi xool di gis seen i pooj des fois parce que caméra bi day jël ci suuf nga gis ñu sol loo xam ne min ci suuf seen tànk yi ñu xeesu la ba mel noo xam ne jigéen ju mel noonu fu mu jëlee lu baax yàlla ma yàlla baal nag balaa may gën am lu ma métti ñu ne dañu toog di waxtaan ci moral ñoom seen bopp dañ leen waroon dugal ci néeg moral leen defal seen moral yi parce que seen moral yi baaxut présentatrice émission yooyu buñ ma seetaanee ci YouTube bi ñoo ma gën a xam ñoom laay waxal duma tudd tur kenn nag parce que l'islam bëggul loolu waaye nag ñoom nañu xam ne li ñuy def du dëgg du yoon bépp femme di jullit di doomu jullit nga xam ne tey boo daje woon ak moom dajeeg doomu Jean doomu Paul doomu Ingrid doo mën a xàmmee kii mooy doomu Ibrahim ak kii mooy doomu Jean ak Paul ak Ingrid parce que ñoom ñëpp seen col yi même pooj yaa ngi ci biti ween yaa ngi ci biti jumbax yaa ngi ci biti bopp yi kenn muuru parce que teg nañ ci benn greffage bu jar cent cinquante mille deux cent mille trois cent mille bëgg nañ góor bëgg nañ góor gis ku ci génnoon àdduna greffage bi la ñu njëkk a teg jël jël jël ay ay ay ay ay ay layset xoos émaay bi man leen jarul xoos joxee leen jébbale leen ko nii boromam parce que kii ba muy dund nee na yàlla maa tey nii laa bëgg mel su jullee baaxul su sangoo janaaba sangat bi baaxul que mu ngi def ay resta ci bopp bi ana jigéen resta resta resta resta bu ngande comme ni Bob Marley la def nga resta ana jigéen ana ana ana loolu ana jigéen ana jël ay greffage yor trois cent mille teg a bopp sa yaay ci kër ga di am problème dix mille quinze mille sa papa di am problème facture courant ki ndox yow nga teg sa bopp benn greffage bu trois cent mille francs doo jaay bi jaamu ci yàlla ci sa papa ak sa yaay ut barke ana jigéen boo xam ne mu ngi ut ay nijaayam ak mbokkam dimbale ko mu liggéey dara mu capital dara commerce te moom ci boppam li mu yë habillement bi rek bu ko tegoon tey capital la parce que portable iPhone 11 bu ko yor yor yor greffage sol ay body yu cher sol ay dàll yu cher ba waxee ñoo ni day bëgg boppam jigéen ñi arrêté leen dellu si leen ci lu neex yàlla balaa ngeen di dugg bàmmeel di daj foofu loo xam ne mburu di ko daj ci mburu Yonent bi sallallahu alayhi moo dem visiter aljana visiter safara mu ne safara jigéen ñi fa ëpp fuuf nee na ñoo double triple góor ñi foofu parce que li naqari yàlla rek ci ngeen nekk sa gémmiñ xasam na nag sa doomu ndey moo la koy wax man sama maam bu jigéen moo ma yar sama yaay bi mu génnee àdduna benn doom bu jigéen rek la bàyyi dama euh, fa tabaarakallaahu dama jege jigéen ñi lool moo tax dama xaw a jigéene parce que samay xaritu jigéen lañ may jëriñ ci sama sëriñ bi sax ay góor jëriñ ko moo tax fu ma toll damay wax jigéen ñi li leen jëriñ parce que nit boo ko bëggee li koy jëriñ ngay wax mais doo ko wax lu koy neex parce que kooy wax lu ko neex àdduna bu ngeen demee àllaaxira mu mere la waaye kooy wax lu koy jëriñ àdduna bu ngeen demee àllaaxira mu gis la ko doon wax ne ñaa yàlla di teral ci loolu lañ nekk dana xam ne wax dëgg yàlla kii moom a bëggoon kon jigéen waxuñu amuñ droit na na être belle na rafet na jekk déedéet mais dañu ne jigéenu jullit doomu jullit ku la gis na am ci yow wekk am ci yow respect xam ne kii doomu jullit la mais ana doomu jigéenu jullit boo xam ne boo ñëwee ci studio bi buñ la invité ci yenn émission télé yi yow da ngay lëx-lëxal ay bët parce que ñi nga jàkkaarloo mënoo leen xool ni nga ko bëggee parce que ay nit lañu am nga bët di xool mais boo booy expliqué mënoo leen xool puisque li ñu sol vulgaire na vulgaire goo xam ne dafa dafa mel na ñi moom télé bi genre yooyu ñoom moo leen gën a arrangé demal fi ñuy jaayee yenn fast food yi yenn resto yi yenn ba ci yenn yëpp dañuy jël ndaw si futti ko comme ni ko ndeyam juree woon jox ko ñaari morceau teg boo xam ne daanaka cëram yëpp ak ci biti loolu dafa ñaaw te réew mi dañu am ay royukaay xëy na foofu laay daanele avant réew mi sax ñu jëlee ko ca kaw haajara moo nekkoon soxna yenentu yàlla Ibrahim ñu bëri nee nañ moo jur yenentu yàlla Ismaïl loolu moom ñëpp ci d'accord te Ismaïl bind kay dañ naan moom mooy maamu yenentu bi sallallahu alayhi wasallam arab yi ci moom lañ génn mais Haajara histoire bi yëpp du fi xej mais man la may tënk ci moom rek mooy wane ne am na ay jigéen royukaay ci adduna bi ma tënk ci rek daw dàqanteeg temps bi donte juróom-ñaar ku nekk ma tënk la benn une minute nga xam ne nitu yàlla yi am nañu ay jigéen ñoo xam ne ci ndekete ji góor ñi walu yàlla yi du ñu baaxee ci seen baay ci seen ndey la ñu baaxee ndey yi ñooy liggéey liggéey joo xam ne moo répercuté wu ci doom bi moom la olof naan liggéeyu ndey añub doom am ñu koy bañ seen ndey moo liggéeyul maa la ko wax waaye ku sa ndey liggéey doo bañ liggéeyu ndey añub doom or que nag Sénégalais yi des fois teraanga doomu aadama bi ak niteem ak mbaaxam fañ koy natt du foofu parce que ci alal lañ koy natt te bu dee foofu dañu juum puisque góor jigéen bi am na alal franc-maçon bi am na alal footballeur bi am na alal mbëru làmb bi am na alal musicien bi am na alal te ñii ñëpp lu ñuy def dara neexu ci yàlla ñoom ñoo ma ko gën a xam parce que ki nga xam ne da ngay ubbi sa ngan dem kër ne góor ñu jigéen ñi kaay leen man ma yëg fàcc ngeen di fecc di riisu man may wax ngeen di tañax tañaxi loolu moom moo la gën a xam loolu neexul yàlla xaalis la ci ut waaye xam ne amu ci diine te la muy def moo gën a xam ne kër googu du këru yàlla këru iblis la kenn du ci amee yàlla te alal gu xaraam dañu jàpp ne boo ko amee ñu naan waa na ci tabax jàkka na nga ci def lu baax après yàlla bale déedéet mbir loo ci def yàlla du ko nangu bu dee mbëru làmb yi fu tekku ni la sa juree woon di dóorante ay bulon yéen yéen a nga xam ne loolu daganul parce que yonent bi ne kanam jul dafa sacré kenn du ko boo xam ne nag amul ay góor yaa nga toog ne ay jigéen yaa ngi toog ne béy nañ ba pare ñu ñu ñuy sàmm suñu tool fa la bëre woon ñuy nattante doole loolu dara nekku ci waaye lii moom xeetu carte gi am fii moom ci arène yi moom loolu daganul ñoom ñoo ma gën a xam j'en passe yooyu du jël suñu temps mais pour wax la ne teraanga li tax ñu ne nit ndeyam liggéey na nekkul ki am xaalis rek di yóbbu ay màkka di jënd ay bie di jënd ay kër ak oto yu seer ñu ne kii ndeyam dafa liggéey déedéet teraanga mooy nit ku jub xocc di daan dooleem lépp lu neex yàlla mu ngi ca lépp mu ngi ci loola lépp lu naqari yàlla mu ngi koy daw la ko yàlla jox ci sutura lu mu bari lu mu tuuti tuuti mu ngi koy bokk ay mbokkam soo ko gisee naw ko ndax comportement ndax nite ndax mbaax am na alal ou amul alal donte visite la buy fayeku benn trente mille francs waaye la mu yor ma ngi cay ngor-ngori di yem ca sàmm ngoram sàmm diineem bu amee sombi sombi bu amul toog jàpp njaamanam kooku kat am na teraanga bëri na kër gu ne xam ne kër borom barke la waaye boo fa demee añuñu teguñu añ teguñu reer ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na toog ñetti weer këram safara tàkk fa te Yonent bi mooy borom mooy papay borom barke yëpp kon du alal waaye doylu la ak nite ak sutura bu la yàlla defal loolu nag dama ne ci ndey lay jóge du jóge ci baay barke baay waaye yiw ak xéwal ak ndam ak teraanga ak tedd ci ndey lay jóge ndey moo ëpp doole ñetti yoon ci baay ndax waa ji ba mu ñëw ci yonent bi sax ko su ma toppee yàlla topp yonent bi topp la ba pare topp diine ku may topp topp lépp lu ma yàlla digal ci lu baax ci julleeg aj maak ak ku may topp mu ne ko sa ndey ba mu ñetti yoon mu doog wax sa baay benn yoon kon xam naa ñu ngi naan technicien bi bu fekkee ne waxtaan wi xëjëf rek bu ñu arrêté kii ñu arrêté ñu def deuxième partie remise beneen yoon ci beneen semaine bu ko defee ñu ngi koy ñaan loolu waaye ñun li ñu bëggoon eggali wax ba keroog mu ñu dog ci loolu mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci àdduna nekkoon ay royukaay kenn ku nekk def loo xam ne jëf ji mérito na ñu tàccu la ñaari loxo te jëf jooju yomb te jigéen ñu tey ji duñ ko nangoo jëf xamuñu ko bugguñu ko utuñu ko toppuñu ko faalewuñ ko te loolu mooy maye barke puisque bu fekkee ndaw si dafa ñëw fekk ab moo jàll goo xam ne jaay na mat jaay daqaar jaay këriñ waas jën am capital jaar ci suuf tukki liggéey ñu saaga ko toroxal ko tooñ ko ba mu am alal lu ne daj na ko ba am xaalis ñëw jënd immeuble teg jënd oto teg yow nga gis ko rek nongi nongi ndax alal bëgg ku la may deux millions trois millions nga pasar pasaree ko ñëw toog ah bu fekkee moor moom xalaatul yàlla amul jom ba lim dajoon ci àll bi yëpp jaral na ko moom mu ñëw jis benn jigéen jox ko trois million ne ko ko may may bu njëkk wala deux millions wala un million cent boole ci jox géwél yi ñuy toos ak di yàq la mu sonnoon yëpp ak la mu dojoon yëpp mu ñëw yàq ko ci benn bés ci koo xam ne waxuma la un million wala cinq waaye jarul sax benn junni bu toj na ku ñu may un million cinq cent wallaahi jarul junni puisque du yar du nite du du mën sax togg ak passé fo déedéet bu ñëwee ay weyam lay guddal mel nu seexu jinne xamadi xàmmewul ndey xàmmewul baay jëkkër ji rek lay gis bëggul bokku jëkkër li mu bëgg mooy moom ak ay séeram loolu moo nekk ci dëkk bi ñime ko wax loolu la ragal ko wax loolu kon ndekete Haajara boobu bi nga xam ne moom mooy maamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog ba mu amee doom yàlla jox ndigal yantu yàlla Ibrahim nee naa leen histoire bi xëju fi sinon ñu wax ko na mu demee yëpp mu andi ko ca Màkka keroog Màkka googu amul nit amul tool amul garab amul ndox ay xeer kese la mu ne ko fii daa lay campé ak sa doom ay boo ko fi defoon tey ñaareelu jamono ji wala ñetteelu jamono ji wala ñeenteelu jamono ji la aawa bee la mu ne ko ma toog fii ci àll bu amul xeer amul àll bu amul ndox amul garab amul lekk amul naan ñu ne mbuusu cere ak mbuusu ndox kese la ndaw si yoroon ak doomam mu ne ko toogal fii mu ne ku la ko digal mu ne ko yàlla mu ne ko nangul naa yàlla yontu yàlla ibrahim dem ba nga xam ne ndaw si gisatu ko mu jàkkaarloo ñaan ñaan gu màgg nga xam ne mag dañ kuy samp kër bokk ñaane yàlla barkeel kër ba mu ko ñaane pare ndaw si bi yëf jeexee tey màkka ñëpp a ngi fay dem te jigéen ko def safa ak marwa ñëpp a koy daw te jigéen ko jëkk daw suñ jógee ci moom mën na ñëw ci Mariama yaa yonent yàlla Isa mën na ñëw ci Rabiatul Adawi mi nga xam ne doon wax yàlla dama laa bëgg ba doon junni doon julli ñi ne nañu téeméer ñu ne nañ junni rakka guddi gu nekk ñu ne ko loo ci namm mu ne damaa bëgg bu ëllëgee bi andi teg ma ci kanamu yonent yëpp ne ma andi leen jigéen seen xeet yi bu mel ni kii damaa bëgg ëllëg yonent bi di ma bëggee téeméeri rakka ñi ne nañ junni rakka guddi gu nekk loolu la Rabiatul Adawi doon def te ñëpp xam nañ jaar jaaram avant muy dem nekk jigéen ju sell mën nañ ko topp ci xadijatu nga xam ne bi yenent bi ñëwee di woote xadijatu moo màggee yenent bi 15 ans yenent bi bi mu koy takk xadija 40 ans la am yenent bi am 25 ans kon femme yi fi nekk nga xam ne ay femme diriyanke lañ ñii dañu commerçant ñii dañu baana baana ñii dañu nekk ay ay cadre nekk société nekk nekk nara dee deewu ceddo puisque am nañu alal te bëgguñu sëy boo leen waxee ñu ne góor ñi seen alal lañ bëgg te deew ceddo lañ nara dee ndax yenent bi nee na dee ci célibataire deewu ceddo la puisque alal gee tax duñu ubbi góor ñi def leen ni Khadija Makhtar Sarr mu ngi fi Fata mu ngi fi man maa ngi fi ak ñeneen ñu mel ni ñun góor ñu baax ñoo xam ne am nañ jom am fulla am fayda nekk ca daare nekk ca jàkka yi nekk ci jumaa yi di jaamu yàlla di jàng di jàngale waaye bëgguñu ñooñu yow boo amee kër am xaalis liggéey ñàkk am oto gis góor gu baax goo mën a jaamu yàlla ci moom waa doo jaamu yàlla ci moom nga woo ko ba mu ñëw ne luy sa projet su dee daa bëgg ubbi école nga ubbil ko école soo paree mu takk la ngeen sëy ngeen ngeen ngeen nekk fata waaye déedéet fee ngay denc say million buñ la tuddalee wala ñu ndeyale la dara nga dem yàq xaalis dem adopté ci àll ba ñëw andi teg ab doom boo xam ne juróok ci Adama ak Awa loolu mooy pauvreté pure mooy toroxtaange na a dund ci célibataire ba xëy dee boo demee looy wax yàlla boo waxee ñu ne yàllaa ñëwagul ma ne ah yàlla de comme amul ndey amul baay amul avocat ci kaw suuf foo ñu takkal ko dara kon xam naa xaasi Saddam comme yëf yi du jeex ñu daañalee foofu puisque comme ça émission bii ñëw ñu def remise eggal li nga xam ne ci lañ nekkoon waaye kàddu yi ma cee daanelee mooy jigéen ñi ragaleen yàlla nangoo dem sëy jigéen ju nekkul ci sëy bu ci deewee deena deew ceddu te jigéen am ku sëy fase ak ku sëyagul ñoom ñaari ñëpp ci jamono ji ñi si gën bëri seen ñàkk sëy ci ñoom la dépendre ki sëy fase bëri na lu mu fase di ko nangu kër baayam wallahi bu ko nangu bu ko nangoon ci sëy bu du fa jóge parce que dëkk bi dañu naan naqarin waaye tey la gën a neex tey la oto yi gina a bëri tey la kër yi gën a gën a bëri tey dund bi gën a neex tey xaalis gën a bëri waaye nit ñi ñoo doyloo tul àdduna nag damay naan toujours lu doy amu fi lañ fi doyloo moo fi nekk waaye sëyi fenn lu ñu la jox nga xeeb di teg sa bët di ko teg feneen ba xëy tas sa sëy toog sa kër ga di mbaraan dara jaru ko ci kaw suuf kon jigéen ñi toog leen seen sëy sëy te yàlla tax lu ngeen fa ñàkk ngeen muñ ko ba fekk la loo fa loo fa muñul dara fekk bu dee ñi tas bu dee loolu mooy ñi nga xam ne ñu ngi nekk si sëy bu dee ñi tas ragal leen yàlla xam ne njaalo yàlla dafa ne bu ko nit jege te boo tasee te am loo tàmmoon te gisatoo ko amatoo ko am ñooy gis nga xeeb leen am foo teg sa bët munoo fa àgg boo góorgóorlu ci njaalo ngay dee. puisque gars yi boolewuñ ci wax dañ lay feeñ fen yoo xam ne ba àdduna tukki a nekk uniquement pour jot la bu ñu dem seen yoon bu ëllëgee nga gis keneen ñoom jigéen ñi tas te toog seen kër ñoom a gën a xam li may wax. bu dee ñi nga xam ne nag ñoom ay cadre lañ ba nit ñi di sëy dañoo dem ne ñoom dañu jàng fa tabarakallah mu ngoog bu bu bu nit ñi di sëy ñoom dañoo dem ne ñoom duñu sëy dañu jàngi ba ñu jàngee ba pare am diplôme ñu ne ñoom comme dañoo def seen seen adduna ci jàng dañ cee fay seen xaalis yàq seen temps ñu am seen kii ba pare di sëy dañuy ut liggéey ba ñu amee liggéey ba ñu ne ñoom dañu continuer seen liggéey ba dëgër léegi nag am nañ liggéey am nañ xaalis ñu ne léegi lañ pare pour sëy yàlla na leen man du leen man du ma seen morom bu leen ma fontoo heure bi ngeen sëy mayu ma bu ñu dem genn wàll yëpp ñu lekk seen xaaj ne dañoo am rab amuñu benn rab ñoo seen rabu bopp xam nga luy dëgg nañu xool ci gaa yi sama gaa yi ñu jaamu ci yàlla waaw waaye nag boo amee boo boo amee sa teraanga téye ko ne man góor may defal teraanga ana ana jigéen defal góor teraanga Xadija defal na ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ba àdduna tukki nag ñu mel ne Yonent bi sallallahu alayhi ko ci mbaax it waaye ñu ko jege ñu ngi fi kon ñoo yéen tamit dem leen xool fu ngeen jaamu yàlla sinon ci ceddu ngeen ci deew ceddu ngeen di dee de célibataire ngeen di dee kon loolu mooy dëgg kon waxtaan bi ñu aj ko ajandi ko jàppal ko edd ba beneen kii ñu ñëw eggali ci jigéenu royukaay yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak ñu ngi ci àdduna bi pour ñi ngi wax ne liggéeyu ndey añu doom euh, ay slogan kese xam ne loolu du dëgg la ak ñiy wax ne jigéen ñi amuñu royukaay ñu xam ne royukaay yaa ngi fi ñoom ñoo leen bëggul roy kon ñu yemale foofu waxtaan bi jigéen ñi nag nañ ma baal am ah, man ci ñoom laa far waaye na may faree ci ñoom moo rek wax leen dëgg bu saf sàpp te wex xat ndax loolu moo leen di jëriñ àdduna moo leen di jëriñ àllaaxira dëgg du yomb ndax médecin buy faj bu yërëmee du am résultat kon yàlla nañu yàlla may dégg topp ñu ngi nuyu xaazi Fata xaazi Maxtaar xaazi Saddam ak xaazi Mor lu rafet ci waxtaan wi yàlla la lu ci dëng ñun ñee gàtt àlluwe la waaye ñu ne suñu yéene nekkoon defar yàlla nañu yàlla may dégg ak topp haaza salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu